خمسة آه. الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته comme niñ ko baaxoo def samedi bu nekk ci waxtu wi ñu dajawaat di fàttalante téere yàlla bi subhanahu wa taala xam ngeen ne ba léegi ñu ngi suratul baqara tey ci kàttanu borom bi subhanahu wa taala ñi ngi jël ñetti aaya 261 262 ak 263 261 260 hmm bii jëluñu ko ah bon kon 260 la ñuy jël tey benn aaya la benn aaya bi ñu ngi ciy jàng ñeent mbir ci kàttanu borom bi subhanahu wa taala bi ci njëkk mooy azizatu l insan fi xubbi maarifatu l majhuli wa tatalluu ilayhi doomu aadama mooy mbindeef moo xam ne foo ko fekk mi ngi bëgg a xam lu ko ëmb lépp luñ ko nëbb doomu aadama bëgg na xam loolu lu tax ñu nëbb ko ko loolu ñu ko nëbb lan la foo fekk nit mi ngi jéema xam lu mu xamul woon loolu moo indi tey doomu aadama yi avancé moo indi doomu aadama yi toll fi nu toll mooy doomu aadama yi jéem a xam luñ luñ leen nëbb loolu dinañ ko jàng ci aaya bi di ñëw sunu kanam wala ci aaya boobu di nga fekk doomu aadama mu ngi jéem a sëpp lépp lu nekk mu ngi jéem a xam lan la waaye dinañ gis ci aaya bi wilaayatullahi taala li ibrahim haysu araahu min ayaatihi matma anna bihi qalbu wa sakanat lahu nafsu dinañ jàng ci benn aaya bi muy aaya 160 bi borom bi far gi mu far ak Ibrahima alayhi salaam yàlla péeteem gi mu féeteeg Ibrahima yàlla wan na Ibrahima ay aayaam. yoo xam ne dina mën a dalal xelu ibrahim alayhi salaam waaye mbiram dina mën a teey dal dootul déngi-déngi ci lenn dinañ jàng ci benn aaya bi subuut aqidatul xayaati alsaniya bi bisati alxalaaiq ahyaa lil xisaabi wal jaza dinañ jàng ci aaya bi nekk sunu kanam mooy sax gi nga xam ne sax na ko pas-pasu dekki ku dee di nga dekki sikki nekku ci loolu ku yeboo sóoraale ko ku repp ba dund di nga dee ku repp ba dee di nga dekki loolu moom kenn amul garabam kenn amul pexeem ku dund dee ku dee dekki pas-pas boobu saxuwaayam dinañ ko jàng ci aaya bi ne borom bi subhanahu wa taala dina dekkil jaam ñépp amul ku dul dekki nag koo xalaat ne du dekki rek kooku day dekki maadaama dund na day dee bu dee day dekki gis nga ci diggante dee ak dekki rek doomu aadama yi waroon nañ xam ne kenn mënul dara yàlla rek a mën koo fi yaakaar day dee bu dee dañ koy suul buñ ko suulee yàlla denc ko ba mu neex ko yàlla dekkil ko te bu ko yàlla dekkilee yàlla dina ko taxawal ci kanamam kon gis nga loo yaakaar kenn ku dul yàlla ne sunu borom subhaanahu wa taala dina dekkil jaam yi ñoom ñëpp te lan moo tax mu leen di dekkil mooy pour atte leen fay leen fa man yaamal misqaala zaratin xayran yara wa man yaamal misqaala zaratin yàlla dina dekkil jaam ñi pour atte leen fay leen ku ci def lu baax mu fay la ku ci def safaan ñu delloo la sa safaan nga wéetoog moom mbokk yi dinañ jàng ci aaya bi ba tey ziyaadatul imaani wal yaqin ni ngëm yàlla day yokk waaye yaqin tamit day yokk waaye dinañ jàng ci aaya bi différence su yaqin ak imaan yaqin ak imaan muy ñaar yoo xam ne ay martaba la comme ni mu amee islaam iman ihsan nekk nekk nekk islaam nekk jullit mooy tax nga am iman iman moo la yóbbu ci yaqin islaam mooy jébbulu ci yàlla cër yi ñoo koy liggéeyal yàlla cër yi iman xol bi kese la yaqin nag mooy nga am kóolute ci yàlla bu bu ne keng dootoo sikki sàkk di déngi déngi ci lenn wala ngay tiit wala ngay ragal wala loolu mooy yaqiin loolu dinañ ko jàng ci aaya bi kama nazara al abdu ila ayatillahi al kawniya comme ni doomu aadama ba tey kullama nazara al abdu saa yi doomu aadama xoolee ci aaya yàlla yi nga xam ne moo nekk ci univers bi ci àddina bi ngëmam dina yokk su amee ngëm war na am yaqiin wala qaraa wa tadabbara ayatillahi alquraniya su fekkee xooloo ci li yàlla bind leneen mën na laa indil ngëm mooy soo jàngee wala nga settantal alquranul karim loolu tamit war na laa mën a may ngëm su la mayee ngëm war na laa mën a jural yaqiin lii nii mbokk yi ci tënk moom lañ fas yéenee fàttalante tey ci kàttanu borom bi subhanahu wa taala mu nekk aaye 260 comme ni ngeen ko waxee jàppoon naa ne passé nañ ko أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تهي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من التير فصرحن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزعا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم يقول المولى برم سبحانه وتعالى من يفاتلي مبيرو إبراهيم عليه السلام إبراهيم لم تكي في عرب ها ياغ نانكو في دي أبون rahimun mooy baay ju am yërmande abun rahim ñu kole ko mu nekk ibrahim ibrahim xaritu yàlla wattaxaza allahu ibrahim ibrahim imaamul muwahidin inni jailuka linnas imaman ibrahim kii yar gone yi jullit yi faatu juróom ñaareelu asamaan ibrahima du ku ndaw de alquran yàlla subhanahu wa taala tudd na ci sa genn wàllu saar yëpp surat ibrahim isturu ibrahim baqara ba suratul aala da nga fay fekk suratu ibrahim baqara suratu baqara da nga fay fekk turu ibrahim boo ñëwee ba ci suuf suratul aala fa ngay mujjee gis turu inna haza la fi sufi ula sufi ibrahim baqara ba aala waaw première hizib bi ba dernier hizib bi turu ibrahima nga fa ndax li mu nekk imaamul muwahidin borom bi nee na wa iz fàttalikul qaala ba mu waxee ibrahimu ibrahim rabbi yow sama borom arini won ma kayfa naka tuhiyil mawta ngay dekkile ñu deeñi yow sama borom ibrahim xalilu rahman abul ambiya gis nga boo ko ne ci da ma garaatam yi abul ambiya mooy bàyyi yonent yëpp néew na yonent bu ibrahim nekkul baayam ba ci muhammad alayhi salaatu wasalaam ci ibrahima la soqi ko kuy tagg yonent bi ba yegg ci ismail foo jëm ah ci ibrahim kon ba ci yonent bi ibrahim mooy baayam ba pare yàlla royloo yonent bi ibrahim ñun jullit ñi yàlla royloo ñu ibrahim laqad kaana lakum fi ibrahima wallazina maahu mu ci teg ah is qaala li qawmihi keroog ba mu nee nitam ya parce que tawhid pas-pas bu set la leen doon jàngal inna buraa'u minkum ñun de deñ nañ ci yéen wa mimma taabuduna min dunillah ak lépp lu ngeen di jaamu te du yàlla dañ naa ci yéen banaa leen aduna ak àllaaxira lenn dong mooy tax ma mbokk ak yéen mooy hatta tu'minu billahi wahda gis nga moo tax yàlla mu ne ñu roy leen ko bu ngeen bëggee baax roy leen Ibrahim bàyyi leen bokkaale mais fii sa jabar day bokkaale sa doom di bokkaale sa baay di bokkaale ñëpp di bokkaale nga bokkook ñoom nag te yàlla dala ko tere parce que borom xam-xam bi ñuy firi l'islam lan la ñuy wax al istislaamu lillah wala wal inqiyaadu lahu bittaa wal baraatu min ashirki wa ahlihi loolu mooy firi l'islam l'islam mooy da ngay jébbulu ci yàlla wommatu jëm topp ko nga bàyyi bokkaale ak képp kuy bokkaale mais ñun bokkaale yëpp suñu xarit lañ suñu mbokk lañ nit yenn saa yi sax mu woo la ci bokkaay bokkaale nga naan waaw waaye munuma mu ne waaye ñëwal rek man xam naa ne yow bokkaale yow même man maay bokkaale nga seetaan ma ñu may bokkaale bu rafetee nga tàccu ma wala wala ñun ñëpp dañuy seetaan bokkaale kan ñun moo mu seetaan mbër bëre yi ñooñu dañuy bokkaale wala bokkaale wuñ ah su mbër mi daanee doo tàccu ah waaw kontaanoo waa jaa ngi bokkaale yàlla nga kontaan ci moom kon mu ngoog yenn saa yi sax ki bokkaale dalay woo nga kontaan ci trop di ko seetaan mu daanu nga tàccu te day bokkaale yaa ko gën a tey xam nga te Ibrahima waxoon na leen hatta tu'minu billahi wahda yàlla rek boobu laa ñemee waxoon mais yeneen i ñemee moo ko xam ngeen ko ibrahim ne sunu boroom man de damaa bëgg rabbi sama boroom gis ngeen moom daawul daawul tudd nit yi gis ngeen keroog ba jibril ñëwee ci moom ñu takk ko di ko bëgg a sànni ci safara jibril ne ko loo bëgg ma def mu ne ko awma ci yow impo soxla sama boroom rek sama boroom du ma seetaan rabbi sama boroom arini wan ma kayfa naka tuhil mawta ngay dekkile ku dee kon moom xam na ne yàlla moo bindu jaam ñi xam na ko bu wér xam na yàlla moo leen di rey xam na yàlla moo leen di dekkil ibrahima ba mu xoolee biddéew yi feeñ mu ne sama borom a ngi nii biddéew yi suux mu ne ah, man bugguma luy suux ana laa uhibbul falamma ra alqamara ba mu gisee weer wi ne tël ah mu ne kii nag mooy borom bi yëfi daal di suux mu ne déedéet jant bi ne tëll mu ne ah mu ngoog nag kii nag haza akbar kii mooy yàlla ñoom ñëpp ñu suux mu ne la in lam yahdini rabbi ay bu ma yàlla jubalul gis nga gis nga xelam ni mu koy poussé muy dem ci biddéew la jógee lan moo gën a ngand biddéew weer mu dem ci weer lan moo gën a ngand weer mu dem ci jant bi yooyu yëpp suuxee mu ne ndeke yii duñu moom kii indi yii mooy borom bi ñun nag ñun lu ndaw moo ñu jommal nga romb lu ndaw bàyyi ko fi dem ci lu ndaw Ibrahima ci lu ndaw la jógee dem ci lu mag mu xam ne yàlla mooy yàlla subhanahu wa taala moo tax xam ne yàlla mooy dundal lan moo la wan ne xam na ne yàlla mooy dundal ba muy wax ak Namruud lan la ko wax bi muy wax ak Namruud lan la ko wax ban question la ko posé sama borom mooy dundal yuhyi mu ngi nii rabbi yuhyi wa yumiit sama borom mooy dundal mooy rey waa ji ne ko déedéet man damay dundal di rey te léegi ma démontré ko sa kanam nga gis mu ne ko bismillah waa ji daal di woo ñaari nit ci kaso bi rey kenn ki ne kenn ki libéré naa la dama nga ñibbi mu ne gis nga kee dundal naa ko parce que bàyyi naa ko mu dem kii rey naa ko kon Ibrahima xam na baat bii ne yàlla mooy dundal rabbi moo tax bi muy bëggee xam mbiru ku dee ak ku dund demul ci ma sàmba demul ci demba demul ci waajooju ne woon day rey ak day dundal parce que xam na ne kii saay saay la bandi la day fen li mu def nii du dundal ak rey moo tax boroomam la dem ne ko won ma kayfa tuhil mawta nooy dekkile ku dee sun borom daal di koy laaj xaala borom bi ne ko waaw yow ibrahim awalam tuumin xanaa da ngaa gëmul xanaa gëmoo ma allahu akbar xanaa gëmoo yàlla laaj bu rëy la ko yàlla wax awalam tu'min xanaa gëmoo ibrahima ne ko ah kay gëm naa de sama ngëm gi kenn la def qaala bala ah kay sama ngëm gi lu dëggu la ku gëm yàlla laa ku la gëm laa yow borom bi walakin waaye leen doo nga laa bëgg soo gisee ma lay laaj laaj bi borom bi ne ko ah mu ne li yatmainna qalbi li yatmainna li yaskuna wa yahdaa dama bëgg sama xol bi tranquille sama xel mi dal dootuma déngi déngi dootuma sikki sàkka ci sama borom ndax dama xam ne maa laaj borom bee ma tontu won ma pare naa ci ndeysaan yonent bi aleyhi salaatu salaam dafa ne yowmal qiyaam bu ñu dee dekki ñépp ku gis yàlla sa ngëm dina yokk ali ne ba mu des man man li ma doon gëm yàlla pare naa ci ndax yàlla gis naa ko ba pare ñu ne ali foo gisee yàlla mu ne raaytu rabbi bi ayni qalbi gis naa sama borom fa kayfa abudu ma ara man bi gars yi di wax la mu ne man nan laay jaamoo lu ma gisul fa kayfa abudu ma ara nan laay jaamoo lu ma gisul ñu ne ko ali noo gisee yàlla mu ne raaytu rabbi bi ayni qalbi gis naa yàlla ci sama xol pare naa ci gëm naa ko jeex na tolluwaay la ñun yoon lañu foofu allahu akbar gis naa sama borom ñu ne foo ko gisee mu ne ah ndax nit war na jaamu lu mu gisul ñu ne yow foo gisee yàlla mu ne gis naa yàlla ci sama xol loolu wuute nag ñu naan yee gis nañ yàlla ñoom face à face jaxaraan Sénégal tey foo xool gis ku yor kurus kaay moom la yàlla kaay gis nga yàlla yow gisoo yàlla yow kaay moom la yàlla gaay bul julli kaay gis yàlla moo gën a gaaw allahu akbar ndeysaan wala caaxaan yi rek ay ku fanaan soirée ba wër set suba mu ñëw ne la kaay moom la yàlla ibrahima ne borom bi ngir sama xel sama xol mën a dal mën a teey dootuma am benn sikki sàkk ci xel luy de lu may dengi dengiloo wala mu may reculeloo wala mu may delloo ginnaaw moo tax Ibrahima ba mu leeree ba xam ni yàlla kilifa la mag la mais lu ko yàlla def loo mu def dégg ngeen ñu ne yàlla dugguloo na ko néegu góor fekk mi ngi nekk mag wala dégg ngeen loolu wa isibtala ibrahima rabbahu bi kalimaat fa atammahunna baat yooyu lan la mooy dama nga xarafi ji ibrahima dem xaraf ca mag la nekk na paa yàlla xarafloo ko mooy baat yi waaye loolu sax lu ndaw la waaye yàlla rendi loo ko doomam mu rey ko parce que léegi amatul problème lan la waxoon yàlla baat bi li yatmainna qalbi pour sama xol mën a dal ma xam ne yow yaay borom bi bi mu xamee yàlla yàlla bi mu ko nee rendil doom bi nu mu def ñu xool ñun ñu xamul yàlla waxuñu ñu reyal doom waxuñu ñu faseel jawar waxuñu ñu bàyyi leen kër yi waaye lu ndaw ndawaan lañ ñu tere mënuñu koo bàyyi ay yu ndaw yoo xam ne suñu bakkan doon ko bëgg ñu ne ñu ñu ne li waa ji waxoon feebar dem ci docteur bi mu ne ko bàyyil yàpp mu ne ko yow mi laay bàyyi waaw yow laay bàyyi fii ñi yàlla ne bàyyi leen yëpp dañu ne yàlla yow la ñuy bàyyi gis naa ndaw soo xam ne dafa meesu kese ñu ne ko sa mees yi de boo ci jullee yàlla du ko nangu mu ne kon ma bàyyi julli gi ñu ne ko ah mu ne ma bàyyi julli gi ah fii doo gis loolu ñaateen ngay dégg yu mel noonu fi yow li ngay def araam na de ah man de li mu wax dëgg yàlla mënu ma ko bàyyi moom munu ma ko léegi ñu ne ñu def mu ne ah man mënu ma ko bàyyi en tout cas ci li laa ci li laay dee ñaata yoon nga koy dégg kon ku kuñ ci waxaan reyal sa doom fu ñu jëm est ce que di nga ko rey li yatma inna ngir mu mën a dal qalbi sama xol ah comme dafa laaj te yàlla xam na ibrahim sunu borom subhanahu wa taala yàlla sàkku ci moom mbir yi pour won ko li nga xam ne mooy dalal xelam mooy dëgëral ngëmam mooy tax digganteem ak boroomam jokkoo bi mën a dëgër ndeysaan xam ngeen ne tey doomu aadama mboolem moyey pour jokkoog moroomam am na ko waaye lu koy jokkaleeg boroomam réere na ko mboolem moye tey li ñuy jokkaloog sunu bopp lu lay jokkaloog sa soxna am nga ko walla amoo ko du ngeen tontu leen di jokkaloog seen patron fu ngeen di liggéey am na walla amu leen di jokkaloog banque bi denc sa xaalis am na walla amu li lay jonkaloog waa Europe am na walla amul li lay jokkaloog waa Asie li lay jokkaleeg li lay jokkaleeg lépp la doomu aadama maîtriser waaye lu koy jokkaloog boroomam doomu aadama réere la ko doomu aadama mën naa wommat lépp tey waaye munta wommatu ci ginnaaw boroomam di nga wommat mbaam di nga wommat fas di nga wommat gëléem di nga wommat oto di nga wommat terrain di nga wommat avion di nga wommat bato mais munoo wommatu ci sa ginnaaw boroom doomu aadama mbooleem calcul yi ak règle yi mën na ko waaye mënagul régler boppam ci digganteem ak boroomam bu ñu la joxee portable nga régler ci calculer ci lépp loo bëgg walla bu ñu la joxee ordinateur nga calculer ci loo bëgg bu la joxee machine à calcul nga calculer ci lépp loo bëgg waaye sa diggante ak sa borom munoo calculer diggante bi munul nekk gis ngeen lépp amal nañu importance sunu dund ba mu des diine moo tax gis ngeen Ibrahim moom di yenn lenn li tëli ko yoon lu dul boroomam li yatma inna qalbi qaala borom bi ne ko fa xuz jëlal arbaatan ñeent min a tayri ci yuy naaw soo déggee tayr mooy lu am dunq mooy tayr jàngeen ci alquran sunu borom subhanahu wa taala di wax ci suratul muug nan la wax aaya bi ci suratul mulk awalam yaraw ila tayri gis ngeen baat baa ngi xanaa xool leen ci picc mu ngi seen kaw tiim leen awalam yaraw ila tayri fawqahum xanaa gis leen picc mu ngi seen kaw tiim leen saafaatin mu ngi tàllal laaf yenn saa yi wa yaq bi ne mu koy delloo waaye maa ngi leen di yégal ne maa yumsikuhunna téyewu ko foofu ci kaw illa rahman lu dul yàlla ndeysaan maa yumsikuhunna téyewu ko illa rahman ku dul yàlla laay lépp luy wan nañ wax nañ sànq yàlla wan nañu ci mbindeefam yi loo xam ne buñ ko xoolee xam ne yàlla am na ci lu leer yàlla wan nañu ci alxuraan loo xam ne buñ ko jàngee war xam ne yàlla am na ci mbindeefam yi ku xool asmaan ak li fa nekk ci jant weer biddiiw loolu doy na ku xool jant bi rek mu benn laaj laa bëgg a laaj ñen ñoo fi juddu 1960 fii ci biir jumaa ji am na ah yow 60 ak léegi jant bi mos naa coupé li nga fekke ah mosoo fekke fu ñu nekk tey kii affaire batterie bi dafa faible foo ñu renforcer batterie yi wala ah ah lu tax xoolal jàkka ji rek biñ ko tabaxee léegi amul ñetteel waaye xoolal duy yi fii gis ngeen groupe duy yi fii yii yëpp dañ ko dindi waat wekki ko dañ ko changé def yeneen lampe ndax yi fi defoon day gaaw a lakk gis nga xoolal jant bi rek te boroom xam-xam yi wax na ñaata milliards yi at après lay tàkk xoolal ah ay milliards yi at yu muy tàkkaat kii du fay xoolal weer bi xoolal suuf si xoolal asamaan xoolal géej gi rek bis bu nekk ngeen di lekk jën te jën bi du jeex xoolal xari tabaski rek bis bu nekk yéen a ngi rey yéen a ngi ngénte di céetal di dëj di rey jouru tabaski ñaata xar la ñuy rey ci àddina bi yooyu yëpp ay kéemtaan la yuy wan nit ñi ne yàlla mooy dëgg waaye doomu aadama du ko gis xataa sax waxuma yooyu parce que daf ñoo sori sunu bopp yàlla mu ne wa fi anfusikum afala tubsirun moo xanaa du ngeen xool sax seen bopp nag ngeen xam ne maay yàlla ibrahima yàlla jëlloo na ko ñeenti picc yooyu ñu naan tayr sunu borom ne ko fa surxunna na nga leen rey fa surxunna ilayk nang leen jàpp nga rey leen soo leen reyee nga daggate leen soo leen daggatee nga jaxase ko ci benn paan ñoom ñeenti ñëpp waaye yi ngay jël bu mu nekk benn façon boroom xam-xam yi nag dañuy wax soo demee ci ñii ñu ne la ginaar la séq la ak naat ak kanaara ak pittax nga dem ñee ne la jàmbu jóob la naat la ku nekk di indi waaye li wir mooy yàlla da ko ne jëlal ñeent mbir yu am dunq loolu ñu naan picc yu bokkul xeet nga rey leen boo leen reyee nga dajale leen daggate ko ba pare dajale ko jaxase ko ba yëpp jaxasoo après nga saam leen nga ñëw ci benn montagne nga saam ñeenti saam comme ñeenti lañ woon nga saam ñeenti saam da ngay tibb rek teg tibb teg tibb teg mi ngi mel ne nag bu ñu rey tam xarit wala xar bu ñu rey ba pare bu ñu ko reyee fees ko daggate ko saam ko léegi comme ay nit ñoo cotiser woon jouru tam xarit ñu daal di koy saam ba mu pare ñaata saam lañ koy saam li mu ñu cotiser vingt personnes ñoo cotiser nag bi ñu saam ko vingt saam su ko defee ñu commencé di woote diw ñu ne waa ñu daal tibb saam jox la diw ñu ne waa ñu tibb saam jox la ba yëf yi yéex ñëpp yóbbu lekk Ibrahima nag yàlla da ko wax ne soo leen reyee na nga leen def ci montagne ñeenti montagne comme ni ñu nekkee ñeent arba ajibal ala kulli jub jabalin rubul ajza al maxluut ginnaaw ba nga leen jaxasee na nga leen ut na nga leen def ñeenti jal jal bu nekk nga teg ko ci benn montagne kon mu nekk ñeenti saam ak ñeenti montagne waaye summa axaza bi rasi kulli tayrin ala xidda ñaata bopp la waram ñeenti bopp jal bu nekk mu teg fa benn bopp jal bu nekk teg na fa benn bopp saam bu nekk teg na fa benn bopp ci kaw montagne bu nekk teg na fa benn saam ak benn bopp ci kaw saam bi après mu dem de loin mu taxaw fu sori mu taxaw mu ne ginaar sëq ñëwal bopp bi déparé fii tànk yi déparé fii dënn bi déparé fii ñu ne kuruj kukuriku dem seen yoon mu woo beneen bi naat bi bopp bi départ fële yax yi départ fële tànk yi départ fële dënn bi départ fële karaj bu daal di sab sant yàlla départ ba ñeenti yëpp daal di jeex Ibrahima di xool du luñ du luñ du luñ ko wax nettali xam ngeen yéen dañ leen koy nettali ngeen waaru kon moom mi ko gis nag waxuma moom mi ko gis mais moom mi ko def nga xam ne deret jaa ngi nii takk ci loxoom yi fompoogul raxasoogul mi ngi nii taxaw ak faakaam di xool formation weesuwul loolu moo tax doo gis yonent bu déngi déngi parce que yonent yi yàlla daf leen formé ba ñu ne këj mu yónni leen keroog bi yàlla yónnee Moussa ne ko fan la ko woo tuuri Sina ci montagne bi ne ko wa maa tilka bi yaminika yaa Moussa lu mu tont hiya asaya atawakka biha wa uhustu biha wa liya fiha maaribun uxra yàlla mu ne am na leneen loo ci nekk Moussa lii lan la mu ne yat loo koy dee mu ne dama koy sàmmee loolu la wax dama koy sàmmee sama xar yi waaye am naa leen lu ma koy doyee de dama koy reyee yi may bëgg ndaw ndawaan yi nga xam ne jaan yeeg jiit yeeg yi ma bëgg a màtt waaye agresseurs yi sama yat bi la de yàlla mu ne ko waaye yat bi am na loo ci xamul yat bi am na lu ci nekk xamoo ko mu ne ko lan la mu ne ko sànni ko Moussa sànni yat bi mu nekk benn ñàngoor benn yeew ba pare yàlla mu ne Moussa mu ne ah mu ne ko téel yat bi lan la xel nangu ah foofu lan la Moussa utilisé xel wala iman ah ngëm la utilisé xel nanguwul yeew ñu ne la téye koog sa loxo xel nanguwul loolu waaye iman la utiliser parce que yàlla moo ko wax xuzha wala taxaf bi mu sànnee yat bi dafa yëg ci boppam tiitaange fa awjasa fi nafsihi xiifatan Moussa yàlla mu ne ko laa taxaf bu ragal téye ko sa nu iiduha siiratahal mu daal di koy téye mu daal di nekkaat yat yàlla mu ne ko lii nag formation la parce que ca firaaw na nga jëm mu téye yàlla wax na ci alquran yonent yi duñu tiit ci man laa yaxaafu la dayya mursalun yonent du tiit lu tax parce que dafa am ko mu àndal kayfa kayfa la yonent yàlla di ko yónnee muy tiit même koo dem lu mu rëy xoola firawna mi ngi mel ne tey rek Barack Obama wala sax firawna moo ko ëppoon doole waaw parce que Barack Obama moom benn benn xaaj adduna bi la gouverner ah amma firawn dafa gouverner woon adduna comme Namrud comme Souleymane comme dafa am ñoo xam ne ci seen àdduna ñi mës a gouverner àdduna ñeente lañ ñaar ñi ay jullit lañ ñaar ñi yéeféer lañ ñaari jullit yi kan ak kan la ana portable yi may maye ñaar ñi mës a gouverner àdduna jullit yi kan ak kan la am na ñu yëkkati de Zulqarnayni ak Suleymaan Zulqarnayni ak Suleymaan ñoo mës a gouverner àdduna ci jullit yi yëféer yi mhm Namrud ak Buxtu Nasar kuy wax keneen Namrud ak Firawna kuy wax keneen ah gis ngeen ndax am doole waaye terewul yàlla bu yónnee ab yonent yonent yi keng la ñuy def ci kanam gaa yooyu Moussa dem ca Firawna di ko waar Firawna ne ko luy wane ne preuve yàlla la yónni Moussa ni yat bi yat bi nekk jaan mu dugal loxo bi ci poqotaan bi génne ko ya loxo bi weex tal am lumière mu ne ko yow magicien nga li garaaw nag mooy chaque jour boo nekkee buur nga am ay dag yu bon ay conseil yu bon Firawna bi Moussa sànnee yet bi Firawna tiit na xam na ne lii dëgg la waaye dafa am benn waaye bu tudd Haamaan bu ñëw bu mu ko nee lii lan la mu ne ko moom kii di magicien kii kii di tus dafa ñëw pour nangu suñu suuf si suñu dëkk bi la bëgg a nangu nekk président loolu moo tax tey ci àddina bi saa yoo waxee ñu ne dañoo ñëw pour nangu suuf si jóg leen saa yoo ne yàlla nee na ñu ne dañoo bëgg a coup d'état dañoo bëgg a détourner xelu nit ñi dañoo bëgg dañoo bëgg loolu du yàgg fa yàgg Moussa dem ci firawna di ko waar firawna ñu gëmloo ko ne kii njabarkat la yow njabarkat nga danga ñuy may temps ñu woo sunu njabarkat yi ñu won la ne yow lii sa yi nga indi du tus waaye ci gàttal tuuti tënk keroog ba daja bi amee njabarkatu firawna yi ñëw ñu ne Moussa yow yaay sànni wala man maay sànni Moussa ne leen sànni leen ñoom bi ñu sànnee seen njabar yi commencé Moussa dafa tiit yàlla ne ko laa taxaf antal ala bul tiit yow yaay gañe yaay nekk ci kaw inni maakuma asma'u wa ara maa ngi ànd ak yéen yow Moussa yaag xoola ñaari nit ñaari nit ak peuple ñaari nit tey bu benn yonent wàccoon ak benn mbokkam ñëw di waar waa Sénégal yëpp ci benn stade bu doon bu doon star bi da nga koy xaaj nga ni tribune officielle ñan ñoo fa nekk président ak ministre yi ah am na beneen tribune boo xam ne député yeeg sénateur yi am beneen boo xamante ne gendarme garde yi ñoo fa nekk am beneen boo xam ne cumbur yi peuple bi léegi nag fan la Moussa taxaw kon ak ak mbokkam Haaruna ñoom ñaar rek ak seen yat ñëpp di leen yuuxu ñëpp di leen yuuxu peuple bi yëpp di leen yuuxoo ñoom ñaar kese ñu wéet cundum waaye ñoom dañoo gëmoon ne ñu ngi ànd ak yàlla te ku ànd ak yàlla doo tiit doo jàq doo wéet ndeysaan bi ñu sànnee Moussa daal di sànni yatam bi yetu Moussa bi daal di wan lépp lu gaa yi indi woon lépp lu gaa yi indi woon war na nañ ko lu xew Firawna mi woote woon balaa mbir mi di yegsi ci moom moom ñoom ña nekkoon ci suuf jàkkaarloog ñoom jàkkaarloog Moussa ak Haroun bi ñu gisee yetu Moussa bi wan ñoom li ñu indi woon ñoom dañoo rot ci kanamu Moussa daan ne amanna bi rabbi Moussa wa Haroun balaa affaire bi di dem ñoom xam na ne lii du njabar gis ngeen lii Ibrahima def nii ñii nii dañoo gis rek gëm parce que xam nañ ne lii dëgg la ñoom dengi dengi wuñ loolu moo dal léegi Ibrahim awalam tu'min qaala bala yàlla won ko mbir mi jeex na pare na te di nga xam léegi lu mu wax dafa am mbir yoo xam ne su la ko yàlla wonee dootoo laajtati biñ ne amanna bi rabbi Moussa wa Haarun rek Firawna ne iye li ngeen di gëm de joxuma leen ndigal gaa yi ne ko ngëm yàlla amul laaj ndigal ndeysaan yow doo dem jàkk no am na il faut ma laaj sama papa quoi ndax est-ce que dama dem jàkk wala du ma dem jàkk kooku du julit te doo muuru doo xaar ma laaj sama jëkkër te doo julit doo bàyyi bokkaale nga ne mais il faut ma dem laajte ji quoi il faut ma dem laajte ji koy laaj yàlla nee na loo ciy laajte ti yàlla nee na la ilaha illallah saaba bi da doon wax sa kii mbokka mi yéen léegi asamaan daanu seen kaw ma naan leen yàlla nee na yonent bi ne ngeen naan ma Aboubacar Umar nee na yéen da ngeen dof man dama leen ne yàlla nee na yonent ne ko la mu ne yéen da ngeen Aboubacar Umar ñun waxutuma Aboubacar Umar ñun ñan la ñuy wax ah yàlla nee na nga wax keneen ne waaw mais kon nu ñuy def kii lu mu wax yàlla nee na xoola firawna mu ne gaa yéen du ngeen xaar ma jox leen ndigal gaa yi ne ko ngëm yàlla amul ndigal gis nañ gëm nañ mu leen mais di ngeen xam kon lan la dinaa dagg seen loxo ndeyjoor ak seen tànk càmmoñ ñenn ñi ñenn ñi dinaa leen daaj ci garamu taadan may dinaa leen daaj ci kara bi naa leen yeew ba mel ne dama leen di dugal ci biir gaa yi ne ko defal loo mën def àdduna rek nga mën sunu yaram yi nga mën dagg waaye sunu ruu yi mënoo cee yegg imaan bi mënuloo ko dara faqdi ma anta qaad innama taqdi haadihi alxayaati dunia maa ne eh defal li nga bëgg a def yow adduna dong nga mën def alaxira mënoo fa tus ñu nag yow ñooyam et puis boo ñu reyee yaram bi rek ngay dagg doo egg ci imaan bi balaa ngay laal imaan bi dugg nañu àjjana ba pare moo tax ku gëm yàlla kenn mënul xeex ak moom balaa ngay laal pas-pasam day fekk mu ngi dem na aljanna parce que ruu bi deret ji mooy aar pas-pas bi balaa ngay egg ci pas-pas bi day fekk ruu nekkatu fa Ibrahim loolu la kon chaque jour nañu bàyyi xel ne yàlla yim ñuy wan du rek pour ñu koy gis di waaru di jooy di mbëkk ay pot lampe di di di di déedéet ñu war a yokk ngëm yàlla wan nañu ay aaya yoo xam ne dañoo war a gëm waaye yàlla wàcceel nañu téere boo xam ne buñ ko déggee dañoo war a gëm parce que xam nañ ne lii yàlla rek moo ko mën amul keneen lii daf ñuy wan ne alquran dëgg dëgg moom mooy waxu yàlla subhanahu wa taala amul leneen lu la mën a wan dëgg lu dul alquran amul moo tax ibrahim bi mu ne borom bi subhanahu wa taala yàlla ne ko defal loolu ma la wax jëlal ñeenti picc yooyu nga rey leen saam leen ci ñeenti montagne nga woo leen waaye bul fàtte jal bu ci nekk boole ci bopp su may jaal defal su ma jaal defal ala kulli jabalin ci bépp doj ci ñeenti doj yooyu min hunna ci ñoom juz an benn xaaj soo ko defee ba pare su maduhunna woo leen bu nekk ci turam yaati naka danañ la dikke ñoom picc yooyu saayan di dox allahu akbar bu mu woo turam rek bu nekk copine copine bi daal di ñëw jal bu nekk la fa nekk ci yàpp copine bi jóge fa déplacé daal di ñëw kole ca bopp ba sab dox fekk si ko fi mu taxaw saayan yooyu dañoo dox fekk si ko ba ñeenti yépp jeex yàlla ne ko waalam xamal yow ibrahim ann allaha naka yàlla azizun ku not ci nguuram gi la waaye xakimun ku xereñ la waalam na nga xam ann allaha naka yàlla aziz moo not ci nguuram lan mooy loolu mooy xaalib yàlla noot lépp noot lépp yàllaa leen noot amul ku yàlla nootul amul amul lu yàlla nootul amul ku mu nootul indil leen ma ko koo fa gis muy langar-langari wala muy fëgg dënn may koy at léegi mu dugg bàmmeel ana ana anam kon yàlla moo ko noot buur boo fi gis léegi mu follee ko moo tax ñu ne fa kam min malikin rufi allahu ala maat falamma ala maat dañuy jël benn buur di ko takkal garaat ba dënn bi fees côté ndeyjoor bi lépp ñu takk ko ay garaat ñu dem càmmoñ bi takk lépp garaat ñu dem ci mbaxne bi takk garaat ñu ñëw ci dënn bi takk garaat ñu ñëw ci mbagg yi takk garaat après après day dee ana garaat yi garaar yëpp dañ ko doon jaay après day dee allahu akbar xaalib yàlla moo ko noot yàlla xaalibun ala amrihi aziz ñépp la noot ci mbiram moom yàlla subhanahu wa taala ñépp nag laa yamnau anhu wala minhu shay araadahu bi xaalin min al ahwaal yàlla lu mu bëgg a def amul kenn ku mun a taxaw pour téye loolu billahi wallahi taala yàlla lu mu bëgg a def kenn mun ko téye léegi-léegi lañ doon jàng histoire kan Moussa Moussa bi mu nammee juddu lan la fekk ñu ne ku juddu góor gu juddu rey leen ko bu doon ñun la nga war a génn ñu ne tey kenn ku ku génn ci guddi gi dañ lay rey te nga war a génn nooy def ah nga war a xëy suba ñu ne ku xëy dañ koy rey xoolal rek université bi bu xaaba bi ne université avion bi dafay daanu ñëpp dem nu ko moo oustaz salaamaaleykum ah oustaz ndax mën naa fa université ne avion bi day daanu de léegi nu may def ma ne ko ah seetal koo gëm rek bu dee yàlla nga gëm wala ndaw si nga gëm bu dee yàlla nga gëm nga fanaan fa nga xam ne même boo demee sa kër bu avion bi di daanu doo ngay dee da ngay dee yow ku war a dee day dee bu avion bi daanuwul ñu war a dee tey ci guddi dañuy dee bu fa waroo daanu it ñu fa war a dee dañuy dee bu ngeen dawee da ngeen di dee ah dëgg yàlla day damaa bëgg ñibbi rek ndax sama xel dal ma ne waaw comme ndaw si nga gëm demal est-ce que avion bi daanu na ñu gëmuñu yàlla ñu gëmuñu yàlla dañuy wax rek ngëm gi dafa des yàlla koo gëm doo fi nekk di xool ay doomu sikki sàkk Moussa ngi nii ñu ne góor gu juddu rey leen bu doon yàlla nit la programme bi daf koy aj wala wala waaye lu gën a yéeme xoolal yàlla dafa bàyyi xale bi judd xanaa bi mu juddee sax mënoon na ne yaay xale bi dama nga nëbbu ko ci àll bi waaye mu ne tegal ma ko ci dex gi xoolal ci dex liir buy nàmp ñu teg ko ci pañe waaw yàlla ay mbiram ñu teg ko ci dex yàlla mu ne dex gi yóbbul ma ko ci firawna mi rayaate ah te firawna góor gu mu gis da koy rey wala yàlla du nit mbokk yi yàlla du sunu morom yàlla lu mu bëgg a def daf koy def yàlla ay mbiram xelu doomu aadama wala doole doomu aadama tuuti na ci téyeku am na ñeent ñu ne woon dañuy rey yonent yàlla saalix ñu gas seen plan tëral ko ba mu normal net nan lañ koy reyee ñu ne ñun dañuy bàyyi ba bëccëg ñu dugg ci dëkk bi tàggoo ne ñun dañuy ñibbi dañuy tukki ba ñëpp xam ne ñun dañuy tukki ñu ñëw jël suñu bagage romb nit ñi ñëpp xam na ne ñun dañuy dem bu ñu demee ba génn dëkk bi ñu nëbbatu su guddee ñu ñëwaat ndànk rey ko delluwaat bu ñu bàyyi ba mu am juróomi fan ñun ñu ñëw fekk koñ bi kër koñ bi dëj nañ ba pare ñu ne lu fi xew ñu ne yéen yéen yëgu leen li xew ñu ne ah ñun dañoo tukki woon wax ngeen dëgg yéen da ngeen tukki woon bi ngeen demee daal gis ngeen bëccëg bi ngeen demee ci la ay nit ñëw fii rey saalix dem yoon dem seen yoon su ko defee yéen su ko defee yéen kenn du leen ci boole yàlla mu ne wa makaru makaran wa makar naa makaran wa hum laa yash'urun fexe nañ seen fexe man yàlla li ma doon def def naa ko bu yàgg yàlla bàyyi leen ba ñu jël seen bagage ba dugg ci dëkk bi tàggoo ñëw dem ba ci àll ba dugg ci pax yooyu di xaar guddi jot yàlla màbbal suuf seen kaw ba fii may waxee yéen ñu ngi foofu génn guddi dañoo tukki woon du ñu ñibbisi allahu akbar du ñu ñibbisi parce que yàlla rey na leen ca pax ya yàlla ay mbiram doomu adama tuuti na ci téye ko yéen tamit moo tax yàlla xaalib loolu mooy loolu mooy aziz Aziz soo ko déggee mooy ku not ci nguuram lu mu bëgg a def kenn munu ko téye yenn saa yi day xiin nga gis kuy ngénte taawam dem jël saako xorom di suul ñu ne ko dama nga suul xorom du taw demal bu doon xorom dina téye taw ndox mi dina dàq nit ñi seen kër yi kon dinañ tabax plan jaxaay lu tax ngeen tabax plan jaxaay du ndox bu doon ndox dina xorom dina téye ndox xorom yéen a ngeen a fàtte li gën a li ëpp doole ci àdduna bi ndox la te xorom la am géej gi lu ma am kon kay xorom du tee taw da ngay suul nangam boo bëggee loolu du am da ngay def nangam yooyu yëfu dof la yàlla ne lii ngeew nga ne lu yàlla loolu du warul am te yàlla moo ne day am allahu akbar réer weesawul yàlla tëral programme am yow nga ñëw ne da nga koy téye réer weesuwul loolu ñaareelu baat bi des mooy yàlla hakim ku xereñ la laa yaxluqu abatan wala yujadu li gayrihi hukmuhi hakim mooy man ngaa fekk liggéey doomu aadama bu mu mën a doon nga xool liggéey bi daan ne suñ ko defee woon nii wala wala mën ngaa xool liggéey doomu aadama bu mu mën a doon ci lekk mën nga ñëw ne lekk bi bu ko diw toggoon mu neex mu gën a neex ci yére mën nga ne bu ko diw ñëwoon mu gën a rafet ci tabax mën nga ne bu ko diw tabaxoon bu dee oto mën nga ne marque sàngam bu dee appareil mën nga ne marque sàngam lu mu mën a doon mën nga ne am na ku ko gën a mën wala wala nga ne cëy su ko defee woon nii waaye yàlla du def dara ba nga xool ko ne waruñu koon defee nii bul dem fenn nag xoolal sa bopp rek sa nopp yi fi mu nekk foofu la wala du foofu soo bëggee feneen ñu dagg ko defal la ko nga xool fa ndax dina gën a rafet nopp yi fi yàlla def nopp foofu la war a nekk wala waru fa nekk fi yàlla def bët kan moo bëgg ñu di changer bët yi bët yi fi yàlla def bakkan foofu la war a nekk wala waru fa nekk fi yàlla def gémmiñ kan moo naan sama gémmiñ bu nekkoon ci sama jëbi fii wala sama bët yi ñu boole ko benn def ko fii ci sama jëbi wala tànk fi mu nekk kan moo naan tànk dafa waroon kole waruloon nekk ñaar yu xar benn la waroon nekk mu kole loxo maanaam yàlla bul dem fenn di xool ay leneen loolu mooy hakim mooy ko xereñ koo xam ne lu mu def kenn mënu ko dindi loolu kese la nii la mën a nekkee loolu la loolu mooy hakim moo tax mu ne ko wa alam à partir de tey fii ñu taxaw bu na nga yëg tàmbali léegi nga gis mbir yi wa alam na nga xam anna allaha naka yàlla buur boobu tudd yàlla al mu nga xam ne moom dong lañ war a jaamu mooy yàlla aziz ku not ci nguuram la hakim ku xereñ la moom yàlla subhanahu wa taala mbokk yi loolu moo doon darsu tey boo amee ay njuum dañu ngi koy jégalu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu labbayka ya cheikh bismillah